Malé Diop nek responsable politique mandataire pour coalition Benno Bokk Yaakaar qui ci commune euh, bu Thiès Nord nek également membre de la convergence des cadres républicains qui euh, nous mel tey Mamadou Mary te la ngay présenté wu ci mbokk yi ak xarit yi seetaan. Omar euh, daanaka wax bi ñu responsable ci APR dëkk ci mais fekk baax ci commune Thiès Nord. Euh, élection yi ñu nekk man maay plénipotentiaire ñu ngi koy gën di wax mandataire coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ni candidat mooy son excellence le président Macky Sall tey daal maanaam ci ci noonu la ñu mën a waxee euh, ndomba yi ñu am ci jamono ji ñu toll.

jaarale ko ci le coordonnateur départemental Augustin sayti fekkoon nañu ñu nekk ci ci terrain bi jaxasoo askan bi euh, li tubaab naan di def suñuy visite de proximité pour xam seeni jàngoora lañu ca mën ñu def ko ci loolu ñu yombaloon liggéey bi bi nga xamee ni toll nañ ci parrainage bi ba nga xam ni gis ngeen li nga xam ni moom moom moom lañu ci am parce que trois millions et quelques de Sénégalais am kóolute ci candidat Benno Bokk Yaakaar euh, le président Macky euh, ba mu mën a tey samp ndëndam bëgg ñu joxaat ko réew bi ginnaaw am na liggéey bu am solo boo xam ne kon recommandation yooyu nga xam ne wax nañu ko ci ci bataaxal boobu mu ñu yónnee mooy ñu fekk askan wi def ay visite de ci lañu ñu ne euh, te fi ñu ci toll mooy gox yi ci biir zone nord yëpp nga xam ne 19 centres de vote moo fi ne foo ci dem am nañ fa ay responsable ay points focaux yoo xam ne ci ñoom la ñuy sukkandiku pour mën a dugg ci kër yi waxtaan ak askan bi xam seen jàngoro man ko faj lañ ca mën a fa lañ ca mën des ñu war ko mën a yóbbu fan ko war mais yamuñu ci loolu waxtaan nañoo ñoom ci Sénégal fi nga xam ne foofu la ko. Euh, le président Macky Sall jëlé woon ak fi mu ko indi tay maanaam en terme de réalisation ñu wax leen li nga xam ne nii euh, moom la bëgg euh, mom la def autant pour moi ak li nga xam aussi mom la bëgg bu ñu ko falé le 24 février Inshallah, mu yeggale fa réew moy li nga xam ne mooy yeggale son plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 waxtaan boobu nag dañu seq vraiment askan pour ñu mën ñu wóolu dénkaat ñu ndax réew aussi boo koy dénk dañ koy dénk ci nga xam ne am na ci xam-xam te mën na ko yóbbu fa sore donc globalement foofu la ñu toll ci ci liggéey bi et je pense que noonu ñu ko defee incha allahu rabbi dinañ gis njëriñ très bien mu mel ni toujours li ñuy wax rek terrain bi comme ni ko waxee laata seen candidat di leen jox sax ay bataaxal pour wax ne na ngeen war a taxawoo yéen yaa ngeen ci taxaw li ni mel ci wàllu action sociale ak li ni mel fii ci Taaxi Kaw ak li ko wër est-ce que Malem mu nga ca ñëwaat ci taxawaay boobu ak lan moo waral ngeen gën a confirmer loolu depuis euh, bu ñuy xool du ba 2014 bi nga xam ne euh, nekkoon na élection locale ñuy séntu bëri fii ci benn bokk yaakaar donte ni amoon na ay liste yi nga xam ne rek euh, liste parallèle la moo taxoon ñu ñàkk commune nord parce que bu ñuy xool euh, APR benn bokk yaakaar booba temps moom moo demoon ak boppam ànd ak Omar Diop ak Elentine mais également yéen bi ngeen demoon ak le feu Mamadou Dieng di euh, booloo Far Thiès li ñu mel tey bu ñuy lëkkale ci période boobu tey lan mooy doon li nga xam ne rek moom mooy jàngat bi. mais jàngat bi jàngat bu am solo la loolu mu ngi suñu ginnaaw. tey bokk nañu ndey bokk nañu baay ànd nañ nekk benn euh, ndax liñ naan kum dëbbin rey sa maam foo gis ku ñuul di nga daw euh, expérience boobu daf ñu permettre ñu ñu mën a corriger lu bëri donc dund nañu ko lam ñu jural gis nañ ko tey xam nañ ni suñu force mooy suñu booloo ndax bu ñu booloo rek lépp day daal di mën a sotti moo tax booloo nañ doon nañ benn ni ko président bëggee membre coalition bi yëpp bëggee ko tey noonu la amee foo ñu gis gis nga ni ak allié yi foo ma gis di nga gis ak Seydou bu Jegeen di nga gis ak ñi nga xam ne tey ñu ngi ci biir benn Bokk Yaakaar bi yëpp ak sama waa kër muy waa APR ñun doon nañ benn ndax fii ñu jëm dafa am vraiment taxawaay bu am solo ndax avenir u ndaw ñi ak avenir u Sénégal yëpp vraiment moom la xëccoo. te avenir um réew la du ay caaxaan te gis na li ci président Macky Sall est ñun dañu war a topp suñu bëgg-bëgg bopp ba xañ suñu président loolu mënta nekk moo tax bi ñu xamee enjeu bi xam njëriñ nekk solo si nekk nañu benn parce que benn ci la lépp xaj kon tey am nañ yaakaar ndax bi nga xamee ni xaajaloo nañ ni nga ko waxee léegi ci 2014 man ma am ñu ma àndal sëy na bu am ñu ma àndal yàlla dogal ñun ñu rawoon leen waaye lañ leen raw raw ba ñu am yëpp ñun ñoo waroon nekk fii yore maire bi gannaaw nag loolu expérience la bu ñu dund gis nañ lam ñu xañ bañ jógee ca loola ca 2014 rek lañ daal di àndaat te ba gis nga ba ñu àndee euh, suñu borom kàttanal nañ ci lu bëri loo xam ne nii daal vraiment ñu ngi ci am daal tey nag loolu mu ngi suñu ginnaaw bokk nañu ndey bokk nañu bàyyi te am yaakaar ni nii ñu àndee liggéey bi ñu ci def fu ak fu matul rek sa morom mottali je pense que dinañ fi am ndam lu yaatu yaatu fii ci Thiès ñoo te loolu jar na bàyyi xel Euh, yow nga xam ne tu es un observateur quand même avéré je pense que am na lu bëri loo xam ne xam nga ko fii jàng mais daal li ci am solo mooy nee na nekk nañu benn te incha allahu rabbi dinañ ci am situation alors départ bu Elentine bu nga xam ne dem na fekki coalition Idy 2019 tey bu ñu koy méngale ak ginnaaw départemental ñu génn muy législative bi ñu gis ni département bi benn xëcc na ko tey Idrissa Seck ñu bëri ne dooleem dafa jógaat ñii ne dooleem dafa wàcc yow en tant que cadre convergence républicain lan nga àddu. waaw xam nga ku mel ni LN euh, gis nañ ko dem na dikkaat na après dugg ci coalition je veux dire benn bopp yaakaar euh, ñëwaat nañ ci lii mu demaat xam nga ñu mel noonu aussi jar na Sénégal yi xool seen taxawaay parce am réew aussi. fekkee sa bopp rek la ñu te bëgg gis-gisam la am la mu dem ànd ak ñu respecter choix li ñu am solo mooy Sénégalais yi ànd nañoo ak seen xel bu baax baax fii nag réew mi ñoo ko bokk dëkk bi ñun ñoo fi bokk cosaanoo dëkk fi xam nañ kenn ku ne looy tekki donc am na ci départ yoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla ñun. ñàkk suñu énergie comme ni ñu koy waxee li ëpp solo mooy ñu nekk ci suñu liggéey ñu bañ ñu détourné ci dara dara dara dara waaye loolu moom amul benn solo. voilà très li ni mel tey ci candidats yi nga xam ne dañu nekk des candidats bu ñu wax sax malheureux ci recalé ci parrainage yi ku mel ni Bougane Gueye Dany wóoroon na Sénégal yëpp démb bu ngi woon Thiès te tey ñu naan ak Idrissa Seck li ni mel ban jàngat la ci Malène Diop di or euh, man bu ñu la laajee ci Bougane

donc tey bu ñu ko gisee mu dem ci coalition topp ci ginnaaw politicien lu ne mu dugg ca ba mu jaral ko fu ne mu dem fa def fa caravane je pense que loolu day wane ni réew mi ñor ko te la mu waxoon ni mu doon nit dëgg bu fekkee kàddoom méngoowul ak jëfam sénégalais yi war nañ xoolaat kooku mooy kan te mi nag je pense que du lu ñuy seetloo du lu ñuy toltawee ku bëgg a jariñu da liggéey mais dafa am kàddu yoo xam ne nii vraiment bu ko nit dee do wax te du méngoo jëfam euh, day daal di doy alors mais loolu yëpp day waree ni réew mi ñoru ko boppam moo ko ñor te ñu ne réew mi def ñu fa ñu ne woon fa la ñu ne ñun kenn xamuñu ci dem ak dikk on est constant dans nos positions président Macky Sall exemple la ci boo xam ne nii moom moom ku ko xool rek di ko ci gis ndax bi nga xam ne ni nekk na ci parti démocratique sénégalais suñu boroom dénk ko fa la mu fa yor yëpp mu am une expérience politique extraordinaire bi mu demee ba nga xam ni am na ay jafe-jafe mu gëm yàlla doyloo boppam génn créé parteem suñu borom may ko ci lim ko ci may mais kooku royuwaay la ci am réew te bi mu ñëwee ñu gis lu am solo li nga xam ne def ko mais ñi nga xam ni vraiment dañuy jóg bu ñu ñëwee yi ñoom du ñu dugg ci politique du ñu ànd ak kenn ah bu ñu demee ba tànneef am ñu xam ne ñoom matalu mënuñu dem ñu dem laaxatu ci ginnaaw politicien ngir seen ëllëg vraiment loolu de doy waar donc Sénégalais yi je pense que am nañu seen xel bu choix jotee xam nañ kañu war a àndal parce que tamit am réew euh, day jot day toll foo xam doxalin yi dañu ko war a soppi te ñi nga xam ni tey am nañ âge voté nekk ay xale màgg fekk wuñu génération yu bëri am nañu seen xel et je pense que globalement loolu moom dinañ ci indi lu am solo ndax dinañ voté benn bokk yaakaar le 24 incha allah.

xam nga ni vraiment ñun dañuy bañ a des ginnaaw euh, gis nañ président fu mu jaar ci ci Sénégal li nga xam ne mooy doon ay soppeem ni ñu koy teeroo et mu nekk ay foule yoo xam ni kenn mënu ko quantifier euh, mais kon ñun Thiès dañu am défi bu ñu war a relever mooy def lu ëpp fi mu jaar la def moo tax euh, ci kaw ci njiital coordonnateur départemental. liggéey bi ñu ci war a liggéey ñu ngi koy liggéey comité d'organisation bi liggéey na ba pare euh, fi mu ne li ci des rek mooy xaar ko mu ñëw mobilisation bi je pense que bu ñu ciy génnee jàmm incha allah rabbi Thiès dina ko relever te dinañ wane ni li ñu def yëkkati nañ baabe ba ne suñu ginnaaw en tout cas dinañ dinañ am problème mobilisation donc responsable yëpp kenn ku nekk fa mu mu ngi waajal ndax xam nga boo amee sa mbër mu jëm ca làmb ja nga waajal ko la ca war yëpp def nañ ko.

mouvement de soutien yi lu ci mel ni gis nga le président Ablaye Dièye mon ami Habib Niagne Mamadou Ngingue Babacar Pascal ak maintenant coalition beeg allié yi kenn ku ne yaa ngi koy waajal waaj boo xam ni doy na waar yow léegi nii da nga ma fekk ma nekk ci réunion waajal ñëwu président donc noonu ma koy defee la ko les principaux responsables yi defee incha allahu rabbi jàpp naa ni Macky Sall daal bu ñëwee Thiès ba affaire bi jeex xam naa ne xolam dina seet bu ndax waa Thiès moom kenn du dem ñu des kenn. merci lan mooy doon kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj gi Omar mooy sant ñëpp gërëm ñëpp tey woote Sénégal réewu jàmm nit ñi dal te xam ni lii ñuy xëccoo waruñu ko xëccoo ci xeex waruñu ko xëccoo ci xuloo waruñu ko xëccoo ci xiiroo wala naayoo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi suñu kilifa diine yi wax nañ ko ah gannaaw réew la boo xam ni vraiment am nañ maturité politique. démocratie bi mat am na fi yàgg nañu ko daan defee ñu def ko ci profité nag di jaaree suñu mbokk yooyu nga xam ne faatu leen ci Tamba di ñaan yàlla suñu borom seddal suuf seen kaw te lu mel noonu daal di fiy géej donc ñu ngi lay remercier aussi c'est l'occasion pour nous en tout cas de bi nga xam ni vraiment mu ngi accompagner toutes les formations politiques et puis di leen ñaanal yéen ak seen directeur général Seyni Latir groupe bi màgg ba ñu koy dégg partout dans le monde maa leen di sant di leen gërëm